saraax la def ci xew-xewu lamb tey fekk fa waa ANPS di agence nationale pour la presse sportive ñu daal di génn ni ki démb joxe seen meilleur lutteur de la saison bu 2018 mbër mi dàq bëre ci lutte avec frappe ak ki dàq bëre ci lutte sans frappe waa ANPS ni ki démb ca 10 ca E-Media lañ doon amale xew-xew bu mag boobee mbër mi dàq bëre ci lutte avec frappe bi tabb nañ ko Modou xarañ loo lay wuyoo le Roc des Parcelles mi fi nekk roi des arènes moom la ñu muy lii di drapeau roi des arènes chaque jour moom lañ koy de la lutte ñu décerné ko trophée ba tabb ko moom mu nekk meilleur lutteur de la lutte avec frappe ba Modou ne coppet couronne ba ca Eumeu Sène moom ba ñu xaymaa démb dañ koo jox meilleur lutteur de la lutte avec frappe moom Modou xarañ Lo moo jiitu ca vote ya am 240 maanaam ñaari téeméer ak juróom ñett fukki points Balla Gaye 2 ca topp jël deuxième am fa téeméeri point ak ñaar fukki fukk maanaam 119 rëg-rëg moo ca topp jël am 62 maanaam juróom benn fukki point ak ñaar journal ba xamle ne bile trophée ñuy wax meilleur lutteur de la lutte avec frappe daal dinañ koy jël décerné ko kii di Abdourahmane Falang waa ANPS Falang la ñu jagleel trophée bu dee ca lutte sans frappe ba Mohamed Baye ñu gën koo xam ci général Malika moom mooy meilleur lutteur de la lutte sans frappe mbër mi dàq bëre ci lutte sans frappe ci atum ren ji général 86 points rëg-rëg moo ñëw troisième am lu ci toll ci 69 journal ba ca dooli ne bu ñu demee ca palmarèsu lutte avec frappe bi dañuy gis ne ca 2013 Balla Gaye moo nekkoon meilleur lutteur Bombardier ne ko coppet ci moom Bombardier daal jekkalaat toogaay ba jël ko ñaari yoon la ko Modou ne coppet ci Bombardier ne ko coppet ci Modou Lo 2018 Eumeu leen xajal ma jàll maay roi des arènes maay doon meilleur lutteur 2019 ñëw ne ko coppet ca moom ne ko bu national François Gomis la woon ñu gën koo xam ci franc bi Mohamed Bayo la gën koo xam ci général Malika bu ñu jàllee ci waa Fass ñoom saison 2017 ñuy war fàtte la ci ñaari saison yooyu ngay gis waa Fass ruuru ci ay défaite ba seen xol sedd ci 2017 Forza moo fa sauvé l'honneur saison boobee Papa moo ko ubbi woon le février la jàkkaarloo kii di Ama Baldé waa Fass njëkk a amee ndax sël bu ndaw dafa yéeg ci kaw Papa Sow février Forza ñëw 2019 Balla Gaye 2 daal daan kii di Gris Bordeaux par décision foofee Gris 2 ak Lac Rose ña waroon am combat sauvé écurie ba mujj ñoo am combat saison ba gën a teeboon ci écurie Fass Gris Bordeaux bëréwut Papa Sow bëréwut Rose bëréwut Forza bëréwut ñeenti ténor yi doon compté amul kenn ku ci tooyalam ngembam Gris 2 moo ca mujjee am combat le juin waaye rëg-rëg dafa yéeg ci kawam journal ba jàpp ne ba 2019 ci guta la ne waaye li am ba des mooy Moustapha laa bëgg mu wàcc ñu bëre gannaaw nee na pare na te man pare na na promoteur ñëw signé bi le coow li mu rax ca dolli ne Siteu damaa bëgg mu defal Papa Sow lu mel ni xamee damaa bëgg mu tàngal yaram ya ba mu tàng door koo daan ñu ne ko ndax loolu dana yomb mu ne Siteu bu mënta daan Papa Sow bu yeboo tekki ngembam bu dee Siteu mënta am dara ci kaw Papa bu yeboo bàyyi làmb te xam ne làmb soxlaatu ko journal ba xam le loolee boo moytul pression a dal ci kaw mbër mi ñuy wax fëgga la gannaaw ba mu ñàkkee bi ñuy wax prince commencé naa taxawal digganteem ak Ahmed waaye ci waa lay tàggatémbee dañu koy jeexale gàmmu gi di wàññu nar koo célébré ni ki samedi bi ñu dëgmal ñu nemmeeku teewaayu yenn ci mbëri ci këri diine yi kii di Yaxya Jóob Yékini ak Gris Bordeaux journal record ba xam le ne ni ki ñu ngi woon fële ca Tiwaawoon ñaari mbëri ñu nga woon ca burdu ba ca Tiwaawoon di sàkkuy ñaan comme ni ko taalibe yépp di defe ñoom it defe nañ ko noone jërë jëf mbokk yi nekk li gën a fës ci ëtti yéenekaay bi ñu leen jox daje ba la wuli wuli waat maa ngi wax mbir yëpp nañu abonné ci wasaare lam